Kuros Béthio ab kuréel jóg di ñaaw lu taxawaayu jaraafu dëkk bi la ñuy métitlu moom moo di xar xarkana mu dëkk bi nga xamante ne jël na ko féetale ko ginnaaw te yite jël yosam teg ko ca kanam ñuy xam ne rek ni la ñu doon xaar ca moom ak yaakaar ga ñu amoon loole yëpp gisuñu ko ay jafe-jafe nag ñu joytu ko mu bari lool jëm nag ci wàllu alam gi waaye tamit jëm ci wàllu njàng mi ak wér gi yaram fenn fu ci nekk rek ñu xam leen ni bopp nga fay metti tolloo na si ñaari at moo ngi doxal waaye dañu gis ni muy doxalee au lieu que muy mu mu yëkkati image Ross Béthio yóbbu ko ci kanam non image am lay yóbbu ñu gis tamit presse national bi ak yenn presque corrompue yi nga xamante ni presse ak yenn ñi nga xamante ne ñoom ñoo ngi ci tele yi ak ci rajo yi euh, ni nu koy defee propagande loolu gis na nañu nekkul réalité bi am Ross Béthio moo tax tey moo tax tey ñu génn tey pour wane dëgg-dëgg Ross Béthio nan la mel euh, Ross Béthio su suñu xoolee ci wàllu éducation ndax suñu nee dëkk dañuy xool éducation Euh, compétence transférée la boo xamante ne mairie lañ ko dénk muy école primaire yi euh, ñu am commission boo xamante ni moom lañ ko dénk waaye gis na ni Ross Béthio tey moo ngi souffrir lool école primaire yi boo dem ak i jafe-jafeem école Ross Béthio centre nga xamante ni tey képp kuy autorité fa nga génnee ñu bëri fa la ñu génnee tey classes yi yàqu na mille yi daanu na mairie bi defu ci dara école Santhie ba nga xam ni tey am na ñu bëri ñoo xam ne fa la ñu école Santhie boobu tamit gis nañu classes yi yàqu na mille yi daanu na waa léegi su fekkee école yooyu am problème au lieu que nu jéem a saafara ñu ngi wane ndoos bi benn problème jot nañu wax euh, tey so si wàllu éducation am loo xam ne du compétence su maire waaye tamit moom moo communiqué wax ko euh, lycée bi gis nañ lycée bu Ross Béthio tey ñoo ngi am problème courant boobu ba léegi amuñu courant te courant bi wàccee ko rek moo des ñoo ngi xaar ñu def ko li ajowu nag ci wàllu ndaw ñi ñuy xam ne ni wàllu tàggat yaram moom loolee tamit bokk na ci li tàggatémbe sport bu Ross Béthio dafa naax saay Ross amul maire maanaam bi maire bi ñëwee ba tey ku amu fi jamono jooju moo ngi jël parrainage feneen feneen di feneen di feneen te mënul organiser coupe maire final coupe maire 2021 ba tey tëggunu ko 2022 amul coupe maire te tëggul coupe maire 2023 bi ñu nekk mu ngi nii di jeex coupe maire amul maanaam wàllu sport ñu am problème bu rëy boo xamante ne moo gi fi maire taxaw di seetaan ba tey nag ci wàllu dundinu askan wii ñuy xam le ni dem bi ak dikk bi loolee dal dina tagga témbe te lenn waralu ko lu dul ay liggéey yoo xamante ni tàmbali woon nañ ko waaye ba tey mënta yëngu ci wàllu environnement soo xoolee tey euh, Ross bi tey nit ñi amatuñu fu ñu jaar yoon yëpp dañ ko tëj par exemple tey euh, indi nañ fi projet boo xam ne noonu dañuy pavé dëkk bi projet boo xam ñun ba tey xamuñu kan moo ko financé ba tey xamuñu coût bi ñaata la encore nu ñëw tëj yoon yëpp solo ci dëkk bi muy wàllu pharmacie bi nga xamante ne nit ñi fan woon mën a jaar pour jënd garab yi ñuy fajoo tëj nañ ko ba pare yàq yoon bi yoon bi nga xam ni tey fa la nit ñi di fajoo muy yoonu centre de santé bi benn association bi fi nekk ci Ross Béthio tudd ànd taxawu Ross Béthio defar ko ba mu baax te maire lu ma def mooy yàq yoon boobu ni da koy paafe ba tey gisuñu dara kon gis nañ ni environnement Ross Béthio yàqu na am tamit loo xam ni gis nañu c'est injuste si la nekk muy tey feera bi ñi nga xam ne ay doomu Ross Béthio diñ fii Ross Béthio yoo xamante ñu ngi fi nekkoon doon daan seen doole di seetal dëkk bi ñu leen daan fay jékki-jékki euh, contrat bi dagg ñu continuer seen liggéey maire bi au lieu que bi état waree jël feera bi mu waree jël edit au lieu que mu jël ñooñu jëlu leen fii la leen bàyyi jël ñeneen maanaam 15 personnes lañu woon nu jël ci 2 bàyyi 13 yi jël 28 ñeneen feneen dañu gis loolu du yoon dañuy wax ñooñu nañ leen delloo seeni droit ñooñu nañ leen delloo seen i droit rappel yi ñu def ñoom ñun xam na nu ñaata weer la duñ ci sore waaye nañ leen rappeler seen weer yi ñu toog kenn fayu leen ko ba pare itam ñu intégré leen fi ñu jël seen i morom parce que foofu mooy seen place Ross Béthio dafa maanaam Ross Béthio amul maire maanaam Ross Béthio dafa feebar amul maire amul ku ko taxaw bi suñu maire bi jëm si yàlla amul Bécaye Fatou ba tey gis na ni daal ñun ba tey ñoo ngi jooy di wut maire sincèrement ñuy wax Faly Seck nag suñu frère la na delluwaat ginnaaw mu image Ross mu jéem yóbbu image am parce que Ross Béthio dem moy tax moom mu dem mom kessé kessé du dem fenn kon liñ koy wax moy na valoriser Ross Béthio au lieu que mi valoriser bopam élection yi ñu jëm nak présidentielle la du élection communale mom dafa yéré mandat 5 ans liñ koy wax moy na liggéey na liggéey loolu la ñuy xaar ci moom bëgguñu propagande gi muy def su liggéey nit ñuy génn wax témoin ci mom au lieu que mom moy génn di wax ci bopam benn bi tamit moy na bayyi ni muy imposer nit ñi ay image ñu koy esthéti chaque jour non na réaliser su réaliser réalisation mom la gaay yi esthéti parce que fi ay goro fi dëkk soo defee dañ koy wax dañ koy wax sa kan wax ko sa ginnaaw waaye deful dara kon na na xool ni muy doxalee parce que ni fi mu jëm baaxul te su delluwul ginnaaw daanu jàmmaloo ak moom fu mu génn wax daanu génn démentir ko loolu nag dañ koy avertir te pare noonu incha allah. li leen nag di ay gàllankoor yu bari yoo xamante ne. ñoom ñii di ay doomi ros Ross Béthio bokk ci ay bànqaas yu bari yi ñu ràññee ci taxawaayu société civile bi ñuy xamle rek nii lii nga xamante ni ñu ngi koy gis jaraaf bi di ko doxee nekkul nag la ñu doon xaar ca moom tey jii ñu daal dee takku taxaw rek xam le ni fépp foo xamante ne am na fa ab taxawaay woo xamante ne gënalu leen ñoom ñi nag dinañu sol seenub dàll ngir taxawee noo ne ca wet ga ngir nag lépp loo xamante ne na nga koy naqarlu waaye metti na leen ñu mën koo fagg ba mu set wecc